salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi Dieyna Baldé lay waxal Dieyna comme que yàlla def na génn nga yaa ngi dégg bàyyi nan la delloo si sa xel nga xam ne xale nga danga am avenir yaa ngi dégg bul kattante kenn ku la nar def quatre heures en production nga ne ko boo ma mënee jàppale nga jàppale ma mais nekkuma fi di kattante pour ngeen may produire yaa ngi dégg Diop Iseg noonu la duggee woon sa mayin bi naan la dangaa war a toj àdduna xale nga ak seen la tuye talenteuse dem defal la ñetti morceau ëmbal la loolu la bëggoon biril gis nga ko noonu la def chaque jour nga nekk seen kër di fa añe di fa reere yaa ngi dégg muy kat di la produire ba ngeen amee problème mi ngi nii ah mu naan ma ko woon ak plainte nangam usaareel sa mayin ku la laaj lëf bañal bul envoyé wen kattal à production bu ko jege ku la nar a produire ndax ndax ndax lëf nga bàyyi mu sedd am nga talaa yow mën nga ñëw sax man ma produire la gratuite man am na ñu ma xam ñoo xamante ni duñ laaj lëf bul dugg ci yooyu merci beaucoup kontaan. salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi Dieyna Baldé laay waxal Dieyna comme que yàlla def na génn nga. salaamaaleykum gars yi. salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi damaa bëgg xoolal Seneweb mi day yàq Sénégal information dañ koy recouper xam nga li ma leen wax ñoom liggéeyuñu pour rôle journaliste dañuy war di duur rek. dañuy war di kat seen ndey di duul ñoo yàq Sénégal duul lan man duñu duñu duñu ron duñu informé wu duñu dem xooli ji lan moo xew lu dem tribunal duñ dem fenn di bind di duul rek naan ay jay naa dañ koo condamné six mois ay surs bàyyi nañ ko jay naa Balde dina ñibbi tey këram Ali Balde ak Moustapha boobu ñu téye dañ leen di tiital rek ndax lu jay naa dugg ñoo ko ci dugal ñoom tamit dañ leen di bàyyi jay naa Balde tey dina fanaani këram bàyyi nañ ko six mois surs la du tëdd dara bal nan ko mais bu génnee ci lii jay naa ngir yàlla ak yorante bi boo génnee ci lii xoolaatal sa taxawaay nga dem sangu ji xool sa yaay ba xam liggéeyul la mu xoolal la si sëriñ ndax liggéeyul la ndax yenn problème yi boo ci jógee mën na laa def lu bon loo xam ne da ngay dugg ci benn affaire doo ko tey Seneweb seen data nday Seneweb seen garasu nday damay warax seen doxatu nday de salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum Mbaye Diagne waa Sénégal ñoo ma yónnee nee nan dëkku ne xaj loo ndax daan la fa xajal wutal la place sa équipe a jaay clip bi pour la ñuy def comprendre nga mais sama problème mooy mbay moom daanaan xale bu mool lay bañ a gis ak célébrité day kat rek xare Dakar yu ñëpp kat nañ leen teeralal ci kumbis comme que kat nga ko tourné ko clip kay teeralal fii nga bay gaay ñoom kubis moom xam nga yan rab la am rabu su wër génn feeg Sadio Mané Krépin jaata moom su la am moom njabootu njabootu su la yor sa rab ndeyi lii rek gars na dañuy katt di teg rek katt di teg katt di teg rek kumbis ñawal sa lëf lii joueurs yi ñoom katt gin lay kat mbay arrêtel arrêtel ba gars yi salaamaaleykum mbay jaañ